mbokk yi seetaan Sénégal 4 wi maa ngi man mi soxna Gédé Diop maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ak yokk jërëjëf maman defe naa ne réew mi yëpp seede nañ ni ndaanaan kullu fadrin bi ci wàllu seet ci biir réew mi ak ci bitim réew Faye. ci Sénégal 4 TV. tey mën nañu wax ni yéen artistes yi xewle d'abord ban pressentiment nga am tey ci ci gi. Euh, Sénégal 4 TV je suis ma tàllal micro. ma ñu ci gërëm di leen sant di leen encouragé di ñaar mbir jëm ci kanam. waaw bon juste dire que ça c'est une c'est c'est c'est une euh, très belle fête pour les acteurs comédiens pour les réalisateurs et pour les producteurs C'est loolu bon manqué woon Sénégal en fait ñu def fête boo xam ne dinañu sargal acteurs culturels yi parce que nag waaw góor dafa baax ci bépp yëngu-yëngu donc lii ñu dañ koy rafetlu et di ko encourager également. xam naa ne instant bi yéen a ngi préparé saison 7 bu bu bu idole euh, instant bi lan la gars yi war a mën a xaar ci saison 7 bi. Eh, mais xaar lu dàq li li weesu. Hmm. rek noo xam nga idole moom ci kaw ci kanam rek day tàng di gën a tàng rek incha allah. mais est-ce que xalaat nga ni saison 7 bi mën na mel ni comme saison 6 bi passé. dama la ne mooy dàq incha allah waaw non xam nga ñun duñ ci pucce te buñ ci naree paase ba ko. effectivement effectivement <laughs> tey daanaka bokk ngeen ci ñi nga xamante ni dañ leen a distingué ci guddi gi loolu la ban yëg-yëg ngeen ci am tey. Euh, liñ ci am mooy satisfaction euh, ci liggéey boo xam ne fournir nañ ko mais avec tout l' effort nécessaire quand même parce que xam na am na liggéey boo xam ne bu demee ba nit ñi ci àddina yëpp di ko rafetlu euh, boobu togg nañ ko ba mu ñor te itam ña nekkoon ca waañ yaakaar naa ne daj nañ li mburu di jat daj ci taal waaw donc sant yàlla rek ñaan ko mu jëm ca kanam mhm. et puis ñi ci ginnaaw aussi jël exemple n'est-ce pas xam ne euh, li nga doon taalibeem mhm. faaw da ngay doon sëriñam bu ñor di dogul dafay dikk mu am benn remarque boo xamante ni def nañ ko ci wàllu nominé yi mu mel nii seen choix bi dañ ko porté ci xale yi bàyyi mag ñi te pourtant mag ñi bàyyi wuñu cinéma bi ak xale yi de non mag ñi mag ñi yow tey la wàllu gën a aay c'est nag xam nga dafa di àddina euh, mënoo bokk satisfaire ñëpp euh, te itam trophée boo koy jox boo joxee kenn rek dafay symboliser ñeneen ñi ci des yëpp euh, te ñun yàlla daf ñu boole ci muñkat yi waaw ndax ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo suuxa théâtre dundal ko ci jamonoy théâtre radiophonique ñun boobu la ñu dugg ci théâtre donc di gunge théâtre bi ba télévision noir et blanc am

waaw euh, concurrence Maintenant, ñàkk ci àddina ndax àddina concurrence ko mais pourvu que ça soit une concurrence saine voilà parce que dans naan euh, sport fair play mon collègue. lay lal donc bépp jongante rek bu ko fair play lalee non ca kanam rek ca kaw rek te itam ci jàmm rek lay effectivement tay si tey sénégalais yépp dañuy wax ni idole franchement meilleure série sénégalais mës am benn critique envers idole lan mooy secret waa idole. non secret waa idole xoolal mooy liggéey rek liggéey. liggéey liggéey te wéer ko ci dëgg ak expérience bu leer parce que dañuy wax ne loo doonul taalibeem doo doon sëriñam te idol nag ñi ko séq rawatina ñi ko téye ñooñu dañu jàng ba mokkal kaamil gi donc boo leen yéewee ci nelaw sax ñu taril la ko xam nga ni ku mel noonu mm-hmm. ah lu mu téye mu dem ko ànd ak moom mu yóbbaale la <laughs> donc sant yàlla sant yàlla vraiment kontaan nañu bu baax a baax merci malik merci beaucoup mbokk yi seetaan Sénégal 4 wi maa ngi man mi soxna Gédé Diop maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ak yokk mhm, jërëjëf maman defe naa ni réew mi yëpp seede nañ ñun daanaan kullu fadrin bi ci wàllu seet ci biir réew mi ak ci bitim réew